may am mbégte di am jotaay ak sama jigéenu bopp koo xam ne vraiment artiste la artiste boo xam ne vraiment multiple personnage yi nga xamee ni sénégalais yi ñu ngi koy gis ci moom wane na ko ni artiste bu am talent la bu sénégalais yi war a bàyyi xel la donte ne artiste chanteuse la mais aussi actrice la ñu gën ko xam ci Myrma bu dee turu artist bi la bu dee turu actrice bi nag mooy Astou fële ca Cœur Brisé Astou bu kër Brisé moom la seen bés di am ak jotaay sama jigéen Myrma. Euh, xanaa rek pour commencer damay damay amaat mbégte beneen yoon si jotaay bi ah c'est vrai que sonaloon naa la pour am occasion bi <laughs> mais dama lay xamal nii euh, mbégte lay am saa su ci am ak yow jotaay Myrma. waay salaamaaleykum maa ngi lay nuyu Congaan. di nuyu internet euh, seen seen bés. Mm. donc di di kontaan encore ci invitation bi yow sama waay c'est clair donc voilà et di nuyu ñii seetaan ñëpp maa ngi leen di jaajëfal. très bien alors c'est vrai maa ngi koy wax léegi bala maa ñëw si multiple euh, personnages ak talent yi nga xam ne Sénégalais gis nañ ko ci Murma Saint-Valentin 14 février ni ki démb. féete nga ko. waa féete naa ko. <laughs> d'accord. <laughs> féete naa ko bokk na ma bokkante ak sama doom bi moom laa ko féete. ok waaw ñu toog seetaan suñu film ba heure tëdd ba nalaw jot ñu nalaw. d'accord. <laughs> alors ban message nga ciy bëgg jàllale pour jigéen ñi am di jàmm yi fans yi nga xam ne aussi. ñoo lan Saint-Valentin ah. on le vit tous les jours. benn jour bu ñu choisir le nii rek mais Saint-Valentin les gens le vivent tous les jours. Hmm. man loolu laa gëm. d'accord. d'accord très bien alors Myrma euh, bu ñu nee Myrma actrice chanteuse bi moom la ñuy moom artiste chanteuse bi moom la gis mais dafa am beneen personnage bu marqué waat sénégalais yu bari. Mhm. Euh, ci li nga xam ne mooy téléfilm notamment ak Even Prod ci bii di Cœur brisé. Mhm. pour commencer nan nga def vraiment ba impliqué wu ci li nga xam ne mooy euh, téléfilm de façon générale. waaw c'est c'est venu naturellement parce que euh, Even Prod waa mm, sama famille la laay wax. Hmm. donc sama première collaboration ak moom ñu ngi jugee ci euh, Infidèles saison deux et 3. Ah, dama jékki-jékki après ñu woow ma donc ne ma dañ la soxla pour benn personnage ci infidèle mhm. foofu laa démarré ma naa leen man mënuma jouer de mësuma jouer aussi donc Assane dema non viens rek nous on va for dinañ la former après comme saa nga ñëw pareil aussi Cœur mhm. brisé dama jékki-jékki tonton Ibou Gueye le PDG soxla sama sama image encore mhm. ci euh, série bi soxla sama voix en même temps ci série bi mu woolu ma ma ñëw d'accord mais mais mais lan lan lan moo la may loolu vraiment parce que dañu gis ni bu njëkk dañuy foog ni vraiment pour nga jouer yenn rôle yi. pour mm-hmm. réussir bi nga xamee ni moom la moom la réalisateur bi di soxla. foog nga miin def téléfilm wala en quelque sorte. Mm-hmm. Euh, li nga xam ni mooy yenn kii mais lan moo la may facilitation jouer yi ak personnage yi nga xam ni nga koy gis. waaw ndeysaan ñu bëri dañ may dañ may laaj loolu man xaw ma sax ah man xaw ma sax wallaay xaw ma peut-être sama sama sama personnage moo leen neex et que je sais pas. même depuis infidèle je sais pas sama personnage moo leen neex parce que Assane euh, Eva Show moo tax mu xam ma hmm. donc Eva donc mu wane sama photo mu ne ko elle la celle-là elle nous intéresse kan euh, moom tout ça kadis moom ñu ko donc noonu la démarré quoi ma def casting foofu donc noonu la demee man je sais même pas pourquoi pourquoi moi quoi mais mais ndax ndax biñ la woowee ci produit maison bu mag bu mel ni Evenprod wala ci mhm. production bu mag bu ci yem ni kër Brisé xaw mhm. woon am benn crainte ci lan nga war a mën a def ba vraiment. Mhm. li ñu soxla ci yow pour nga jouer ko normal. <laughs> non du tout. Mm. du tout j'étais contente parce que def Cœur Brisé pour man sax euh, ils n'ont pas ils n'ont pas. je sais pas ils ont bien choisi. Mmh. ils ont bien choisi mmh. les mm. actrices. Mmh. donc ils ont bien choisi aussi les acteurs vraiment je me dis que voilà peut-être je suis le man maay élément bu gën a waaw pare pour def cœur brisé. d'accord oui. <laughs> ndax évident na jouer film wala série en quelque sorte comme ni ñu koy waxee. Euh, non du tout parce que ñoom dinañ la mettre dans de très bonnes conditions. Mm. Euh, te dinañ la dinañ la forger dinañ la dinañ la entraîner. Mm. donc de telle sorte que tu à l'aise te man tamit artiste la te tàmm naa caméra donc nous on avec vous. donc c'est c'est c'est pas une chose boo xamante dafa difficile. d'accord alors personnage Astou moom nga représenté woon ci lii di kër brisé. Mhm. ndax bi ñu la joxee personnage bi yaa ko adopté wala tamit euh, réalisateur bi personnage boobu la gisoon ni lu adéquat la ak yow. waaw ñoom ñoo jël personnage Astou boobu parce que déjà personnage bi. Mhm. Euh, rôle bi euh, perruque yi tout ça ñoom la. Okay. donc c'est eux qui ont décidé changer au début xaw naa ne bon est-ce que du ngeen dem ngeen choisir kuy jël perruque parce que man du ma sol perruque. Hmm. donc un des éléments la bas mu ne ma non non tu sais. Euh, tu es une artiste quoi hmm, hmm. donc euh, bul bul yam limité wu ci ci coupe bi kase tout ça xam nga convaincre ma donc ba ma accepté mais au début j'ai pas accepté mmh. mais quand même après ma ma fair play ma accepté quand même voilà lan la ñu war mën a jàng ci personnage yu Astou ban message nga bëggoon a véhiculer mais aussi li ëpp solo pour yow lan moo la si gën a marqué. waaw personnage Astou am pour man existé gul ah. ah. Hmm. parce que euh, pour man Astou amagul histoire dans Cœur brisé. d' accord oui Astou amul histoire en fait. oui je me vois comme euh, que jouer euh, benn euh, je sais pas. Mm bon je me vois pas de une benn role boo xamante ne. Mm-hmm. mën naa ko expliquer. Mm -hmm. franchement bu mm-hmm. fekkee dëgg nga bëgg dégg. d'accord mais mais mais mais yaa ngi ci yaa ngi yaa ngi ci ci ci cœur brisé ñu ngi gis aussi en quelque sorte ay séquences yoo xam ne. waaw ay séquences waxtaan séquence waxtaan au début il y peut-être benn histoire bu ñu bëggoon créer. Mhm. après ñu dugg si biir on a changé les rôles. donc on euh, on m'a mis en tant qu'artiste chanteuse. ok te c'était pas ça au début. donc voilà je sais pas. qu'est-ce qui s'est passé après avec le réalisateur. d'accord loolu man demandé wu ma ko et j'essaie même pas de comprendre donc après peut-être dinañ ma expliquer pourquoi ce changement. Mm -hmm. euh, mais euh, awma histoire bu ma mën a raconter. par rapport à d'accord d'accord alors mais mais mais nag nan nga ko dundee kon c'est vrai que xëy na wax nga ko yaa ngi doon xaar xëy na benn personnage astu boo xam ni. dañ koy gën a ràññee bien sûr. Mm-hmm. mais loolu gisoo ko. au fond lan nga jàpp ni vraiment aussi xëy na moo waral moo waral absence su personnage bi nga xam ni moom nga doon xaar. Euh, je sais pas parfois le réalisateur mën na dem ba ci biir <clears throat> je sais pas changer mhm. rôle yi wala dëpp rôle yi. parfois tu comprends pas. changement bi neex na la wala neexu la. bon euh, changement bi bon euh, neex na ma ci côté bi bi mu ma dugalee ci musique bi ok côté musical bi si la ma si la ma neex mhm. mais y a pas d'histoire histoire ah, su amul histoire très bien mais euh, dafa am loo xam ne aussi marqué na marqué na sénégalais yu baree bari muy générique kër cœur nga liggéey ko. Mhm. Euh, maa ngi lay wax sànq ni la ñu bari dañ gis ni dafa am multiple talent yoo xam ne macha allah mu ngi ci yow mu ngi nelaw musicalement mhm. da nga wane waat sa bopp. <laughs> loo préparé la wala tamit comme ni ñu koy waxee danga ko bëggoon a def tëggu ne tëggu seem mi ñu xaw ni ñu koy waxee. daal wane waat sa bopp je veux dire. pourtant ndeysaan waaw c'est vrai. cœur brisé euh, on l'a dañ ko def matul sax 3 heures de temps. ah bon wu ma ko préparé wu ma ko donc jour bi ma tonton Ibou woowee assan woo ma ne ma da ngay tese ak IS 814. Hmm. studio pour ñu defar générique gu morceau bi. Hmm. j'étais contente aussi. ma ñëw bi ñu ñëwee si la moom mu nekk di xool à de son côté côté musique bi. ma ànd ak Job sa brain donc ñoom ñoo doon xool paroles yi ñu war a defee ak yooyu. ci durée deux ou trois heures de temps. d'accord si la ñu génnee mélodie yi génnee yi ñu def ko enregistré et top c'est parti. d'accord franchement. mais mu nekk loo xam ni képp ku ko déglu vraiment di nga yëg benn friston ci sa yaram Myrma <laughs> est kon. vraiment xol xol xol nga doon woyee kon ci ci lii di généraux du cœur brisé. <laughs> loolu la en fait. <laughs> à chaque fois su ma woyee dañ naan ma xol laay woyee est-ce ma noonu tamit. Ah parce man dafa mel noonu laa mel de. <coughs> pardon <coughs> j'ai la voix un peu cassée mm, mm, mm. donc loolu depuis ma nekk xale la Père Ouza daf ma ko doon wax tout le temps ne ma da nga am ndeysaan et j'espère que sa ndeysaan bi bu ko yem yemale ko ci musique bi rek mais bu koy bu koy bu ko dugal si xale yu góor yi parce que sinon tu vas avoir toujours des des cœurs brisés. donc on me disait ça pour il disait ça pour rigoler. Mm-hmm. mais euh, je pense que noonu la sama baat mel. man quand tu me benn chose dama koy jël ak cœur. donc lu ma nit su ma joxee dara dama koy jël ak dama mhm. koy téye mhm. te dama koy def ak yéene donc loolu moo tax. su ma su ma wooyee dara wala ma interpréter dara de interpréter dara donc da nga koy yëg. d'accord damay nekk ci biir. en mhm. fait bi ñëpp di am ci bi nga koy woy jàpp ni la ko may mûrement parce que souvent damay dégg ñu naan yenn woy yi lu jugee ci xol dafay dem. ci xol dem ci xol waaw je sais pas <laughs> walaay loo ma si wax tooñ ma parce que mm. man man sax xaw ma man kër euh, brisé bu mu génnee euh, wax dëgg fa yàlla jàppuma woon sax ne dama ci koy def ay sama compte YouTube wala dama koy sax clip franchement je m'attendais même pas ça mm-hmm. euh, man job sa beneen sax déjà moo ko def ci YouTube bi man xaaruma woon si ay nit ñi dinañ ko bëgg ak yooyu comme que générique la. je mm. comme que générique gu film la. Mm. jarul ma ciy sonn ak yooyu loolu rek laa jàppoon ah. mais xalaatuma woon ne sénégalais yi dinañ ko bëgg wala nit ñi di xale yi dinañ ko bëgg ba su ma demee playback ko sax. Mm-hmm. ñi si yuuxoo ak yooyu man sax dafa ma jaaxal donc du coup. Mm-hmm. Euh, lu ma bett la franchement. très bien parce que xaaruma ko woon. d'accord alors muy artiste polyvalente kii di Myrma wala Astou kër Brisé moom la seen bés di am ak jotaay mais euh, tey bu ma bëggoon ñu waxtaan un petit peu ci li nga xam ni mooy thème kër Cœur Brisé c'est vrai que. mën nañu wax ni tendance la doonte ni mhm. joué ngoon ko wane réalité bi nekk ci en quelque sorte góor ak jigéen moo xam sa ak yu demee noonu mhm. euh, lan nga jàpp ni vraiment mhm. mooy waral li ngeen di tuddee kër brisé waaw parce que dañu dugg ci pou xale yi rek parce que ci ñëpp daal doo xale rek mooy am pour euh, cœur brisé mm-hmm. parce que euh, pour man concept film bi dafa fekk nit ñi seen ñëpp seen xol yi dagg déjà parce mm-hmm. que c'est une première ñu ñu def benn réalisation boo mel ne ba ki film boo xamante ne. Mhm. comme ni ñu koy wax amul papa amul yaay amul nijaay donc ñu yàq des jeunes donc te sénégalais ñun jeunes yi dañu bëgg histoire d'amour. Mhm. te tout le temps dañuy am déception donc dañu pour ma dañoo dugg ci powu euh, jeunesse bi. Mhm. xam li ñuy dund donc tonton Ibou nekk koo xamante ne vraiment mm. c'est un bon euh, réalisateur mm. donc voilà et puis mu xam li li daw ci ci ci société bi société bi mm-hmm. donc mu def ko moi je pense d'accord mais mais muy réalité parce que lu fréquent la mën naa wax ni sax mën nañu wax ni maladie générale la quand même léegi <laughs> <laughs> waaw vraiment ngi mm. noonu bon mm-hmm. je pense que c'est loolu moo tax mu def cœur brisé d'accord mais lan lañ ci war a mën a jàngee booy bëgg bëggal ndànk wala del bàyyi xel ki ngay teel wala boo nekkee xele bul teel a dugg euh, en tant que jigéen boo ma doon waxal de façon général message bi ñu ci war a jàngatee lan la. lépp looy dugg nga def ak ndànk. Hmm. <laughs> say bëgg bëggal ndànk. booy lépp looy def def ndànk. parce que simple je pense que tu des 50 pour cent pour attendre beneen 50 pour cent yi après mu nekk 100 pour cent c'est c'est important. Hmm. d'accord mais question bi ñëpp di wax mooy bëgg du bañ ndax. ku bëgg nit mhm. ëllëg trahison mën na ci am ndax mhm. mbëggeel réel bu amoon trahison mën na am mbir ma mbëggeel réel bu amoon trahison man na am maanaam déception mën na am nit mën nga bëgg nit tey suba nga bañ ko je veux dire hmm, loolu mën na nekk parce que dañuy wax rek mais mbëggeel day ruus de hmm. après ngor dong la fay bàyyi boo bëggee dégg dëgg mbëggeel moom affaire da amour yooyu c'est le début rek mhm. mais après li euh, la fay bàyyi mooy ngor bi ak euh, nu ñu koy waxatee. Hmm, ak kóllëre bi hmm. ak xam nga am mel ak sa partenaire da ngeen di dem ba nekk ay xarit. donc foofu après mbëggeel dafay ruus. Hmm. donc loolu du sax débat man je pense que man loolu laa gëm man man pour man mbëggeel c'est juste le début mais après. voilà c'est c'est autre chose quoi. d' accord mais ngeen xam ne ngeen di gérer ci forme ci forme film bi dañ gis ni moo xam góor moo xam jigéen je veux dire xëy na ñëpp mën nañu nekk victime cœur brisé quand même. góor ñeeg jigéen ñëpp donc ce qui veut dire que du rek jigéen ñi. ñoo ci mhm. gën a nekk victime aussi. mais bien sûr. Mm-hmm. cœur brisé c'est résumé wul que jigéen bi kese la dañu wane euh, partie bi nga xam ne jo ji góor mën na si sadik. Mm-hmm. Euh, je donne exemple de Soxna et de Ramatoulaye et cetera et mm-hmm. cetera. comment ils ont ñu leen def donc au début c'était pas facile pour pour elle donc ci euh, côté góor yi aussi. Cheikh Massamba aussi il s'est fait euh, larguer par sa mm-hmm. femme ci mm-hmm. meilleur amem donc c'est c'est vice versa entre yemale wuñ ko kese si jigéen donc góor de am déception jigéen day am déception d'accord alors ma jàngee ci film bi ni relation vraiment bu fekkee am na inconvénient li ñu ci mm-hmm. war a mën a xaar li gën a métti mooy kër brisé yan inconvénient moo nekk ci cœur brisé kër boo xam ne vraiment boromam këram këram daal dundatul. bi yan inconvénient moo si nekk. relation relation bu kër brisé maanaam ku dem ba sa kër yàqu. mûrement mhm. comme ni ñu ko waxee ci olof. <laughs> waaw tout se répare mm. parce que c'est pas parce que une personne a brisé ton cœur que da nga yaakaar ne ba keneen ku ñëwee rek day briser sa cœur da ngay bañ a accepter que ne ñëpp ñoom ay briseur de kër lañ. da ngay jéem a jël boobu bu ñu xasee ba briser sa kër nag da ngay jéem a jël benn recul. Mm. jéem a réparer waat sa xol bi. pour keneen bu ñëwee nga mën koo mën a dégg ko parce que bu fekkee da ko bëgg réparer coûte que coûte nga nekk ak keneen wala coûte que coûte je chercher une autre donc da toute ta vie tu vas être malheureuse quoi il faut se faire se defaraat sa bopp defaraat sa xol donc pour mën a bëggaat kenn. d'accord d'accord mais mais par contre jigéen ñi dañ gis ni xëy na loolu bu la dalee tey fii nii ah xëy na euh, da war a toog yore guwaat rek yu demee noonu. est-ce que c'est mm-hmm. facile aussi quand même nit dund ko vraiment. Mm-hmm. pour ñu waxante est-ce que c'est évident nit dund ko ba pare vraiment mu relever wu waat miroir. waaw euh, au début c'est pas facile. du yomb début bi ah, wax dëgg fa yàlla du yomb nag début bi. <laughs> loolu kay jongaat jarul loolu est-ce que débat la tamit. <laughs> d'accord <laughs> allez-y. c'est pas facile euh, déception dafa metti mm-hmm. dafa metti donc du coup voilà au début c'est pas facile di ko il faut ak l'accepter il faut déjà bu ñu briser ce cœur. buñ buñ la defee lu métti il faut accepter cette douleur là nga def ko en deuil déjà accepter ko bu donc acceptation boobu nga koy accepter c'est ça qui fait après d'accord mu mën a génn sa corps mais tant que tu l'acceptes pas tu es fatigué donc doo ko mës a doo du mës a génn si yow d'accord mais est-ce que est-ce que solution la ñi ko dund ñëpp souvent da ngay wax ak ñoom ñu ne la man pare naa ci góor góor ni moom na doy des trucs comme ça de ce di laajte ku sa cœur brisé naka nga war a mën a def vraiment pour relever waat te discours national bi ñu bari di mën si jigéen ñi mooy pare naa ci góor man daal góor doy na ko non non euh, du du xam naa dañuy mer rek moo tax ñuy wax loolu mhm. mais pour pour se relever waat il faut nga accepter ko il faut accepter douleur bi nga nga nga dund douleur bi nga jooy ko soo koy jooy nga naqarlu ko soo koy naqar mhm. après loolu mooy tax mu denc d'accord d'accord très bien c'est vrai que bëgguma mu nekk vraiment question bu personnelle mais tey bu ma la doon laaj. Mhm. ndax dund nga kër brisé mas nga ko dund ba ngay nekk xale ba ngay màgg ba ngay siiw avant ngay siiw gi demee noonu. Ah, lat nga ma ci wax man mii <laughs> waaw. congaan <laughs> àddina bi ñëpp a dund nag cœur brisé nag arrêté ah bon. <laughs> àddina bi am na ko dundul musul dund kër brisé. man musuma ko dund. musuma ko dund. non non non man ak man ak Moha ak Khalifa yëpp. musul ko ah, dund waaye musul leen ko <laughs> dund. non musul ko dund yàlla bu ngeen kon. <laughs> d'accord. <laughs> ñëpp dund bon. ok même bu dee côté travail côté amour côté boo mënti doon. ok il faut nga am lu la naqari mënul nekk àdduna bi nga nekk fii nga ne doo am kër brisé parce que cœur brisé résumé wul kese si amour. Hmm. cœur brisé dafa vague et que mën nga mën na sa cœur mën na briser surtout sur ton travail hmm. sur même même euh, familial hmm. donc voilà d'accord d'accord mais mais mais lan moo la mayoon force bi nga ko dundee moo xam da nga gënoon a nekk xale wala je sais fan nga toll woon lan moo la gënoon a may force quand même pour mu yomb pour yow nga relever acceptation accepter ko rek <laughs> ok oui il faut l'accepter soo ko accepté euh, et puis voilà tu fais le ni ñu koy waxee nga def sa deuil. Mhm. après tu te libères mu jeex. d'accord très bien. Myrma artiste wala actrice bu cœur brisé moom la seen bës di am ak jotaay mais de façon générale boo amoon vraiment message boo xam ni. Euh, moom nga bëgg a jëmale ci xale yi rawatina xale yu jigéen yi seen mhm. fans yeeg ñi nga xam ne ñu ngi leen doon bàyyi xel yëpp à travers Evenprod ak mhm. série bii di Cœur brisé mhm. euh, ban message bu amoon vraiment message booy jëmale ci ñoom lan lay doon lan ñan la dire say fans quand même xale yu jigéen ñi de façon générale ñu doon bàyyi xel Evenprod ci message boo xam ne jàpp nga ni moom ngeen waroon a gën a mën a bëgg lancer waaw parce que bon c'est euh, boo duggee Mm-hmm. te ñun ñoo gën a oyof xool comme on dit donc tout le temps ay waay ki li mu vivre moom laa vivre c'est comme si que sama histoire ngeen ne ku nekk danaan sama histoire lañu nekk di raconter te loolu euh, vraiment et ça fait plaisir ngay def benn affaire et que keneen di si gis boppam c'est comme si que ñun ñoom lañuy ñuy jouer mm-hmm. wala ñoom ñoo tax ñu koy def donc loolu man coté boobu laa si gis loo xamante ne vraiment sa sa fait trop plaisir euh, de voir les gens Euh, impact bi mu am mhm. ak euh, bëgg bi ñu bëgg euh, série bi donc man loolu xaw na ma dépasser un peu et, et puis voilà tu vois que les gens nekk ñu ngi dund ay ay cœur brisé yu c'est yu énorme te va bu doon nañu ko mën a exprimer mhm. que série bi tax na ndeysaan ñu siy gis seen bopp donc loolu rek neex na d'accord très bien alors wala répondre ma question. <laughs> allez ba tey c'est bon mais dama bëgg message boo xam ne moom nga bëgg jàllale ci mhm. jigéen ñi. képp koo xam ne mu ngi doon bàyyi xel série bi di Evenprod. Mhm. bu amoon benn message vraiment. boo bëgg mhm. jàllale ci ñoom lan lay doon. si en fait je comprends je j'ai pas compris le contexte bi ngay wax lan ci conseil. ngay wax wala je veux dire ci conseil oui de façon générale ci conseil. conseil pour conseiller sur quoi. en fait j'ai pas ci ci réalité bi nga xamee ni moom la série bi wane. Mhm. mais aussi ki nga xamee ni xëy na mi ngi ko doon seetaan. Mhm. te dund na loo xam ni Astou joué na ko wala keneen ak keneen. joué nañ mhm. ko ci série bi moom mu soxla conseil présentement. waaw c'est comme li ma wax l'acceptation lépp loo mën ci dund mu metti il faut accepter d'abord il faut l'accepter pour nga mën ko pour nga mën a surpasser waaw te relever wu mhm. merci pour si tour bi nga ma may mhm. donc il faut l'accepter lu mën a am si àddina il faut nga accepter ko pour nga mën jàll si leneen en fait. donc c'est c'est c'est leur dire que joué wuñu cœur brisé rek parce que bëgg lu ñu lu leen neex la wala dara. dañ ko joué c'est parce que ay réalité la. Mm-hmm. et parce que am na lu ñu si bëgg jàngal et que ñu ñu yeewu parce que euh, bëgg dund mbëggeel mm. du tax. nga précipité wu sa vie euh, coûte ko coûte euh, mhm. li nga bëgg mu am. donc mhm. non mhm. loolu ci film yi rek la am en fait. ah boo ñëwee see réalité bi tu vois que ne lii du du nekkee mbëggeel. en fait du ñun ñuy joué en fait. <laughs> du loolu en fait. d' accord alors mais ban histoire nga jàpp ni vraiment am na loo xam ne relaté na ko ci sa vie moo xam certes loo xam ne joué nga ko wala beneen actrice. benn séquence boo xam ne vraiment. gis nga ko jàpp ni lii. jot na am wala mës na loo xam ni kii di Mirma dund na ko. ci série bi ci série bi bien sûr. pas comme ban séquence par exemple. non loo xamante relater na sama. waaw relater na sa bi <laughs> ko. d' accord bi yëpp ah. non accord hmm, <laughs> <laughs> ban séquence moo la ci gën a neex kon. séquence. ban la ci gën a neex. ban la. mooy bi ma nekkee doon répété. ok ak avec l' après. moo ma si gën a neex. lu tax mu neex la. dafa am mu la fàttali da nga ko moment ba nga ci nekk bëggoon ko wala fan la sa xel. dem non non pour papa ay moment ba ma siy nekk ak par rapport à le fait ñu montré ma en tant qu'une chanteuse rek. Hmm. ci ci ci film bi. c'est juste ça m'a qui m'a moo ma si gën a neex. d'accord ndax am na histoire bu triste boo seetaan vraiment xaw a am xol bu la métti xaw a am déception en quelque sorte. non. Hmm. déedéet. wala da nga adopté wu jàpp ni série la lu ñuy film la. après jeex na. <laughs> <laughs> d'accord très bien alors mais maa ngi koy wax léegi mënuñu bañ a wax aussi ci Myrma artiste chanteuse bi jamono ji lan la ñu war a mën a xaar ci ay projet bu weesoo li nga xamee ni jot nga ko liggéey ak Evenprod ak évidemment sa dernière son bi nga xamee ni moom nga def clip muy généré gu kër brisé ndax am na lu ñu war a mën a xaaraat ci yow. bien sûr parce hmm. que maa ngi nekk di ko liggéey. waaw naroon nañ ko génne bu bu yàgg mais comme que dëkk bi instant bi dafa am tension. bi dafa xaw a jaxasoo donc moo tax ñu xaw a reculer un peu pour gën ko mën a liggéey waaw. d' accord incha allah donc kon nañ xaar clip yi wala projet yi. daal boobu ñu ngi demee parce que comme li may wax man je suis artiste chanteuse. cinéma bi daf ma dab. Mhm. malgré que dama ko bëggoon. Euh, Euh, bi may gën a nekk xale tout ça j'aimais beaucoup le cinéma. Mm-hmm. xëy na yàlla lii la dogal donc ma ma nekk si tey. Mm-hmm. mais nekkul loo xamante ne euh, dama ci dem à cent cent cent pour cent. parce que du du sama métier en fait. Mm-hmm. man je suis plus plutôt euh, artiste chanteuse que que que actrice en fait. waaye man su ma joué event prod ñoo tax ma joué. ñu bëri am na ñu may contacter. c' ma ne non man euh, je joue pas en fait. très bien alors may fàttali ni annonce de mariage moom dafa goo ko moom yaa ngi toog di xaar <laughs> Miroir alors kon kon li ngay waajal mariage boo ko si non xam nga souvent dañu tàmb eh, ci TikTok yi léeg ñuy toog rek mariage de Miroir et des trucs comme ça. pour buñ ko buñ ko dugalee TikTok ñu teel a xam ni daal pare goo ci. pour lan buzz wala pour réalité ngay wax. réalité je bien ah, xam nga ay affaire de mariage moom lu jot yomb. kon hmm. congaan bu ñëwee rek ñu jël. lu yàlla indi rek ñu jël. c'est clair <laughs> d'accord alors en tout cas maa ngi maa ngi doon am mbégte vraiment ci jotaay bi astu. Myrma eh, vraiment ci man Myrma laa tudd <laughs> mais Astou personnage bi nga xam ne moo ñu fi indi woon tey. ah Astou moo leen fi indi bi kër kër kër bi laa ñëwoon bëgguñu waxtaan ci. maa ngi doon am mbekk vraiment Myrma. moi aussi di vraiment ci disponibilité bi liggéey bu rafet. Mhm. mais vraiment liggéey boo xam ne Sénégalais yi safoo nañ ko. moo waral saa su ne lépp loo xam ne def nga ko rek ñun dañuy bëgg ñëw waxtaan ci ak yow. am seeg yow partage ba askan wi gën ko xam waaye oui en tout cas merci man tamit. ci ci invitation bi. Mhm. et di leen remercier et di remercier Sénégal euh, vraiment ni ñu accueillir morceau bi man sax def ma dépassé. comme mhm. je dis. Mhm. et et ça me donc vraiment euh, le meilleur reste à venir. deuxième saison incha allah kii kii c'est donc peut-être dinañ dégluwaat yeneen voice yoo xamante ne. dina gën a dina leen gën a neexaat. niveau bi dina gën a aju. waaw jeex na <laughs> merci beaucoup ça a été plaisir. vraiment merci aussi. kontaan beneen jotaay ak beneen invité sur la chaîne des leaders Murma la woon ak seen Senbuzz fii la merci beaucoup.